Bienvenue sur Salam Vision. yéenekaay bi di observateur ci yoon la xëy tey ak poste bi di bu premier cabinet d'instruction poste bu ndem si yàlla juge Samba Sall jiite woon observateur ne naam ñu koy yóotu bari na waaye du post bu ànd akub noflaay de ndax ci xibaaru yéenekaay bi lu toll ci ñeenti téeméeri dossier wala lu ko ëpp ñu ngi ci taabal joojee rax ci dolli dossiers yi gën a saf gën a sensible fa lay jaar ak it magistrat ba koy jiite ci wag coow li koy topp ci wàllum média yi ñu des ak observateur mi ñëwaat ci jaar-jaari njiit bees bu section recherche gendarmerie Colobane capitaine Aliou Ndiaye yéenekaay bi ñëwaat ci yëg gi macha allah dale ko ci enquêteur kese atum 2012 ba ni mu nekkee patron yi enquêteurs yi Colobane ñu ne fanweer ak juróom-ñaar ci at ci la toll la koy xaar ci liggéey bi nag du doon lu yomb ndax wuutu commandant Abdou Mbeng du lu ndaw donte moom capitaine Alioune Ndiaye xereñ gi mu ngi fi ñu ne rax ci dolli macha allah dal geeg ràññiku woon ca Patar ga étudiant fàllu seen fekk baax ñu faatoon ko ci UGB atum 2018 bi gone yi yëngu foo fekk manifester mooy capitaine gendarmerie bi ñëwoon dalal leen moytul gox ba fitna booba moo nekkoon moom capitaine Alioune Ndiaye njiital gendarmerie Diourbel opposition bi ak njiitam ñenn ci ñoom seeni xar kanam ci yéenekaay bi di laas bokk na ci Karim Meïssa Wade Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall waaye ndaw ci mel ni Thierno Bocoum Babacar bi defal rajo seet yaramu opposition boobee ay jaar-jaaram wàllu idéologie ak taxawaayam ci penc mi yéenekaay bi waxit ci ñi nga xamante ni ñooy opposant classique yi maanaam ñi bokk ci ñëwoon démb ñi ci dooni wàcc bees waaye ndaw yi taxaw aku xereñ lu jëm ci njëlug nguur ak doxal gi pàcc bi ñu duppee nag ci arène politique bu Sénégal la gauche moom la Sud Quotidien xëye tey waxtaane mu mel ni pàcc boobee gauche bu Sénégal Sénégal buy wërëw yoonam waaye professeur Serigne Thiam di enseignant chercheur ca faculté sciences juridiques université Cheikh Anta Diop Ndakaaru ba tey ak Sud Quotidien dafa gis ne léegi kay wàllu idéologie moom daa dandu xajal li nga xamante ni mooy ay alliance contre nature maanaam ànd yu xel mësul jàpp ànd yu doon daanaka njaxas ngir nag élection gox-goxaan yi ak réeróo bi ci ba tey diggante pouvoir ak opposition ci ab bi ñuy jël waa FRN Front de Résistance Nationale ñoom décembre 2021 fa la ñu taxaw moom la ñu bëgg source aané yëf yi ci xaajaloo de ndax tam dina am ci wàllu médiation donte am na ca société civile bi ak ñenn ñu nu duppee non aligné ñu cay dox tànk jàmm waaye lanu bëggal majorité bi nangu luñ leen ko maanaam ñu daal di dogu ci ne bu fekkoon sax ne ci wàllu local yi dugg nañ ci janvier 2022 législative di wotey député moom kenn du ko mës a toxal waaye Benoît Sambou ak i ñoñom dañoo lànkal médiateur yooyee signé gi ndax ñoom ñu ne ay ndawi Benno Bokk Yaakaar lañu duñu yu président Macky Sall Khalifa Ababacar Sall na muy doxee bees ci wàllu conge ci wàllu dëgëral gi enquête taxaw ci ab diir ndax ñoom dañoo gis boole sax as tuut ci masla waaye professeur Moussa Diop ci yéenekaay bi daf ne Khalifa Sall dafa xam ne ak ñii mu janool faaw ak dëgëral naka noonu it bu bëggee safaat ñenn ci ñoñam yu xiste woon professeur Moussa Diaw moom ci wàllu tëralin gis ne Khalifa Sall buñ ko tuddee ndakaaru la xel di dem ndakaaru d'abord laata muy lawali banqaasam ci diwaan yeneen yi Moussa Taye conseiller politique bu xalifa Sall mel ni moom kuy ñaawlu ci yéenekaay bi ci seeni jaar-jaar ak yoon ñi leen nekkoon ni partenaire ak i leneen ci yéenekaay yi di denc ak garab gu rëy urbaine gàntal seeni pexe libération ñu waat ci ne sûreté urbaine kar na jàpp kuñ naan hay dong zang ak i xaritam di pharmacien doomi Sénégal ay toni toni garab lañ doon làq cim taax ci ndakaaru ba ci sax pikiir rek garab yoo xamante dañu ko jagleel ñu amee jabet yu ñu denc ci toilette ca nag ñaawteef yi ay ati ata ngi ñu koy def libération ne police garda bi na waaja ak ñaari pharmacien yi mu ci lëngaloon juróomi kilifay pharmacie yu doon yëngu de la pharmacie ci valeur docteur Madické Diagne directeur division de l' inspection des médicaments di ñëwaat nag ci yéenekaay bi ci nanu def ba gàntal pexe yooyee njublang lii quotidien moom yamul ci yéemu géeg njàmbarte gi nga xamante ni kilifa yi wane nañ ko ngir si gi waaye dafay tiit ngir wér-gu-yaramu askan yi maanaam la santé publique ci Sénégal commission UEMOA Sénégal jilaat nab toogoom noonee le témoin xëy waxe tey ak paluk ministre Abdoulaye Diop nekkoon fi jamono jëwriñ ji ñu dénk wàllu budget le témoin ne geneenuk ndam la Sénégal ci njiitam président Sall gannaaw ndam la woon ci lànk embargo bi ñu nasaloon Mali ci jamonoy fitna gëfa woon Sénégal ba tey ci wàllu koom-koom ak njàppale union européenne la soleil ne ngir suqaliwaat gi union européenne nuppi na ngir gunge ci Sénégal wàllu làmb la ñuy jeexale ak sunu làmb ñu xamal ne Ama Baldé Modou Lô yeesalaat nañ seeni licence te promoteur bi Luc Nicolaï mu ngi ci yoonu régulariser boo bépp combat làmb ji nag ci boppam ak it li waral boobaak léegi tëralin wi ak tëddin weeg xar kanam gi munta changé ñu may chance yeneen mbër yi revanche yi dul jeex ci la xaaj bekaay mbay jàpp na ne loolee du lu jaadu ndax nag làmb ji munta yam rek ci juróomi mbër bismillah garab yu bon yi la ñuy jaay waaw fan lay jógee vox populi ne jàppal ni police bi day tegati na loxo garab yu bon yooyee di wàllum faux médicament yo direction de la pharmacie et des médicaments day moo lëkkaloog sûreté urbaine ba waaw dama ne am na ci ñaari pharmaciens yoo xam ne kon teg nañ leen loxo de allahu akbar yéeni kaa gi ne ñaari entrepôt la laa la wax benn ba Parcelles Assainies la la ne beneen mën a Grand Yoff ah, waaw waaw te bi yoon moom li ñu jàpp ci ay milliards mësuñu koo jàpp de déedéet ci wàllum faux médicament la tribune yéen a kaay ne international de faux médicament la de dama la ay milliards yi milliards buñ ko xaymaa ci xaalis boog soo bi ne docteur Madické Diagne waaw daal dina expliqué nag ma ne réseau boobee nan la gars yi def kon ba daal di koy daje libération yéen a kaay ne tey nag ma expliqué leen sûreté urbaine gi la police ba nan la def nag ba daal di wër ndomba kon chinois bi la ay dong zang mook ay copain pharmacien dama ne la ay garab yoo xam ne kon baaxul waaw la ñu ay seringue ak ay médicament di ay garab yoo xam ni ngir jabet gi la ñi am jabet waaw ca biir dossier lañ fekk kon ñu rangale leen allahu akbar yéene kaa gi waaye nag jàppal ne gis nga chinois boobee ah ay xaritam ci boppam kon ñoo ko doon jàppale ay ati ati yàlla laa la wax dëgg la waaye benn commande boo xam ni kon sûreté urbaine di police ba boppam moo ko def looloo leen daaneel te gis nga pharmacien bi di Aliou ak Mamour Niang waaw ñoo doon gérer na ci yoo xam ne tamit day waaw tey jëlee lañ leen convoqué allahu akbar te jamono joojee nga xam ne gaa ñaa ngay jaay garab yu bon yooyee waaw direct news ak critique yéene kaay nee na wàllu njàng mu kawe mi la enseignement supérieur waa SAES day ñetti fanu yàlla yoo xam ne nee nañ dañ koy gereew la ilaha illallah ngay ñaxtu opposition bu Sénégal tam ña ngay ñaxtu dee ubbil tribune yéene kaay dañoo amal élection locale yi daal la ñu bëgg mooy ñu organiser ko ci 2021 bi la élection locale yooyee waaw front de résistance ba day jàpp nañu das nee nañ dat woowee oh, ñooy borom décembre 2021 rek le ci front de nañ koo amal décembre 2021 laa la wax parce que Moustapha day mi yor seen ci tribune yéene kaay waaw nee na ñeenti étape di ñeenti jaar-jaar yoo xam ne ay farata la mënul ñàkk ci organiser kon ay élection locale yi te loolee lépp xëj na fi laa la wax bu njëkk ba mooy audit officieux bi waaw xayma tamit processus électoral bi la évaluation ba waaw ne la ñaari weer boo tënkee na ñaari résultat yooyee yëpp day laale accord électoral bi la accord collectivité territoriale laa la wax sëñ bi sorang yemu ca parce que Moustapha nee na lu jëm nag ci wàllum code électoral googu accord collectivité locale yooyee waaw ba ci statut maire bi mais loolee mën nañ koo waxtaanee laa wax ni lée ci weeru yàlla dëgg la ñeenteelu état ba mooy déposé wàllum candidature yii te loolee mën ta yàq dara ci organiser jàmm bi nga xam ne kon société civile bi lée ak noonu la ñuy waaw dañu ko namoon ci opposition bi nguur gi kon gën a jegeñante non loolu lajj lay nekk mënul ne pour ñoom ñaar ñu juboo dañuy laj parce que ñooñee nga xam ne nag ñoom ñooy dox ay jàmm day li ñu bëggal waa kër Macky di majorité di waa gouvernement bi wooya mooy ñu daal di signé leer ci turu nguur gi ne même bu dee élection locale yi dañ koo dëkk janvier 2022 élection député kenn du bokk yaakaar lañ teewal ca commission politique ba dégg nga de te dëgg gi tamit xam nga mooy lan bi ci boppam bëggul ñu organiser élection locale yooyee 2022 parce que buñ ko ci organiser rek élection yi kon dinañu ko aj ba laa la wax critique yéene kaay ne gis nga élection locale yooyee xeex ngir kan mooy jiite Ndakaaru njaay jaajob ji xeexu Dakar bi dootul amati day maar di taali waaw parce ne gis ga fam ca nekkoon la Kadibé ci laas yéene kaay ne Macky Sall ci boppam moo ragal dem ci ay élection la la wax parce que xam na ni bu organiser élection locale yi Macky Sall dinañu ko dóor ba maar di taali yéene kaay gi ne waaye tey bi lay kaa leen ñu def ci ay njàngat ah, gaa yee bëri te wuute jaar-jaar gis-gis ana ñu yàgg ci politique la ana ñu bees en tout cas ñoom Karim Wade ngi ni lée ak Ousmane Sonko ñoom Khalifa Sall ngi ni lée ak ñoom docteur Babacar Diop ñoom Déthié Fall ngi ni lée ak ñoom Thierno Bocoum enquête yéene kaa ne en tout cas taxawaay ci wàllum politique waaw Khalifa Babacar Sall mi lée song na gars yi de l'offensive Khalifa maa la ko wax xam nga Khalifa Sall mi lée ni ko nit ñi woon mooy ànd dal ànd ak tey yéemale ay dogalam ci wàllum politique ay prise de position waaye Khalifa Sall day fi nekk ni lée waaw taral ba mu tar tàngal ko ba mu tàng jër ñëf Samuel Vénusien ak Awa Ndiaye xalifiste pur Moussa Diop day waaw nee na gis nga Khalifa Sall moomee daa comprendre mbir mi léegi de ne il faut mu taral ko ba mu tar laa wax ñagasal ko ba mu ñagas ngir électeurs yi nga xam ne dañoo mer yëpp ci côté yëpp Khalifa mi mën leen a récupérer wax dëgg la professeur Moussa nee na gis nga Khalifa Sall Dakar la gi lée Moussa Taye ah, partenaire ak ay collaborateur yu bare bari dañ ñoo wor taay da koo tàngal de 24 heures yéene Sénégal gi la day ab élection lan la fiy jariñ looloo jar a laaj organiser ay élection élection yi jàll nguur yi jàll jàllaat waaye li Sénégalais yi dund day benn la rek mburu foofu ko fëriñ daf yëngal lambatu daf yëngal lambatu 2021 2022 ginnaaw ga 2022 ngir député 2024 élection présidentielle yë waaye Sénégalais ci boppam ñoo lu jaxasoo Serigne Modou Kara Mbacké day ci direct news waaw nee na moom daal gouvernement bu bees bii nee na fukki ministre ak ñeent daal la ca soxla ngir fay jafe-jafe nga xam ne kon moom la askan wi di dund ni indi fi ay intérêt personnel ak partisan dëgg la Mbacké Serigne yamu ca nee na kuréelam gi bu bees gii bokk na ca la muy saafara day xeex ndool ak wàllum chômage wutal xale yi liggéey wutal xale yi liggéeyoo yee ca Kaffrine nag la ko waaw soo joob joon day dalal ne dëgg la parce que caay jaabi day dane woon Macky Sall dafa may oto Mamadou Lamine Massaly Massaly daal koy porter plainte Massaly mujj gagné démb ca tribunal waaw le témoin yéene kaa ne présidence commission UEMOA waaw Sénégal récupéré waat na photo yam ba day parce que ministre kon Abdoulaye Diop moom lañ fa fal léegi critique yéene kaa ne ngir respecté nag ak ak yellee aji saar cey bàjjo bi le collectif dafa doy waaw daal dinay aji saar dafa